mu mel ni que affaire Bougazelli bi am na loo xam ni daal ci yees ca dossier ba mu ngi noonu dañ ci ñëwaat ca kanam tuuti buñ ca jógee dinañ doxantu ba ca dëkk bu sell ba mu nekk diwaanu euh, Touba ak li nga xam ne rek guur gi jot na ko def ci ay euh, jéego buñ ci paree daal di koy ndarkepeg fait divers bi nga xam ne jamono ji yaakaar naa ni moo lëmbee réseaux sociaux yëpp ñu ngi leen di nuyu leen ziar bu baax a baax di am mbégte saa su nekk di ànd ak yéen ci Wood TV ni ma leen ko waxee woon tey dañuy ñëw ak ci li nga xam ni rek mooy affaire Bougazelli bi Bougazelli nag ñu fàttali ko tuuti ca ginnaaw amoon na fi problème mu li nga xam ne mooy phobie wante jamono ji ñu toll moom ak képp koo xam ne rek yaa ngi doon aju ci mbir moomu bàyyi nañ leen ku nekk daal di dem delluwaat ci say activité mu nekk ay sources yu leer yoo xam ne rek jot nañu ko am ñu indi leen ko doon leen ko dëgmalal leneen la ca topp jamono ji mooy màggalum Touba ku nekk xam na ni agsi na ba pare lenn li fa amoon doon jeexi jaax ñi nga xam ne ñoo dëkk ci wàllum euh, dëkk boobu mu nekk wàllum inondation ndax nawetu ren bi euh, képp ku xool rek fu mu mënti doon euh, ndox mi bëri na fi loolu wante nag fu ñu jàpp Antoine Félix Diome moom nag def na ci ay jéego yu ama am solo lu toll ci fukk ak juróom ci ay hydrocureur indi nañ ko ci ay moto pompe fas yéene rek dindi ndox mi nga xam ni mu ngi amoon foofu ci wàll ci diwaanu Touba ci espace vingt-quatre heures kon nag mën nañ jàpp ne jamono ji ak xel mën na dal bu baax a baax foofu te liñ ci mën a dégguwaat rek nee nañ danañ ca yokk yeneen yoo xam ne dana tax ndox mi daal di dem ci jàmm ak salaam dañu koy ndar keppe nag ak li nga xam ne rek mooy fait divers bi ci réew mi ku nekk gis ko démb ak tey genn suwaay doon jël soxna fokk ñëpp toogee di ko xaar pour mu daal di agsi moom mu taal projecteur bi wan nekk rek ne jabar ja ka mu tàkk soxna da doon infidèle ci moom nekk beneen waay mu def ko nag ñëpp jàpp ne est-ce que waroon na ko def ñi naan waru ko woon def ndax sutura baax na ci lool wante luñ ci mënti dégg rek ñu xam ne lii leçon la pour ñëpp ñu bàyyiwaat ci xel bu baax a baax mbégte lañ doon am saa su nekk di ànd ak yéen ci Wood TV dañ leen di joxaat diki daje ba ëllëg ci jàmm.